waaw nga xam ne dongo yi ñeewante gum leen ñeewante ak uuf gum leen uuf mhm. moo taxoon at mañ ko njëkk njëkk tàmbali mhm. moom lañ ko siyaaree ndax euh, lim doonoon day dongo daara yëpp maam te doxin woow ba léegi dara sëppikoo ci kon nag euh, liggéey ba foofu la tàmbalee mhm. waaw waaw maam euh, loolu itam xam naa ku mel ni sëñ Xaadim Seck sax moo ci gën a xereñ waaye dañ koy wax ci turam rek muy daayira bi fi mu toll nii doxin wi fi mu toll tool nii tembe mm-hmm. mooy ku ci ku ci nammatab bi mm-hmm. da ngay dagg carte de membre mm-hmm. carte de membre boobu fi mu toll nii mi ngi toll ci ñaar téeméer dërëm ku ci bokk itam ba noppi am na addiye joo xam ne dalay war ci biir carnet bi waaye addiye yooyu itam dafa am différence ndax dongo bi nga xam ne dafa sàkku ngërëm ba yeewiku di sàkku addiye du bokk ak ki nga xam ne moo ne ci biir daara ji moo tax bu dee ci wàllu woowu itam Euh, addiya ji foofu am na agrawante rawante ndax euh, ki sàkku a euh, ngërëm ba génn di sàkku addiya wet googu da cee am ak wuute ak ki ne ci biir daar ji bu ko defee carnet daayira boobu ne itam kenn ku ci nekk am na lu ko ci war loo xam ne loolu moom xam naa yëfi biir lay doon waaye ku ci ku ci koo xam ne nag it eh, liggéey bi ñor na ko ba mu ñëw di tàbbi si mhm. am na secrétaire général boo xam ne moo yor liggéey boobu dana ko ci gën a defal ay yoo xam ne mooy gën a yaatu waaye liñ ci gën a mën a fésal daal mooy carte de membre boobu nga xam ne mooy dugal membre bi ci biir daayira bi mhm. fi mu toll nii mi ngi toll ci ñaar téeméeri dërëm waaw waaw eh, jërëjëf Serigne waaye kon eh, liggéey bi dafa xaw a yaatu te li des bëri na tra bi muy dem te amaanaa dana dikkat ci yeneen laaj waaye dafa mënta ñàkk ku wax daayira Masaalikul Jinaan tudd porte ki nga xam mooy kàddu gi ñu laaj la première acte de yoo xam ne si moom la daayira Masaalikul Jinaan di liggéey ci biir daayira Masaalikul Jinaan mu leer na lii daayira Masaalikul Jinaan ñoo ah, tudd euh, ko daayira Masaalikul Jinaan muy acte de travail nañ ne lii moo doon ay yoo xam ne ay jëmbat la wala ay tool yu ñuy liggéey wala ay kër yu ñuy tabax wala ay daara yu ñu xam ne dañ koo defar ci tur membre daayira Massalikoul Djinane yan acte de travail a wax yoo xam ñoo koy liggéey actuellement mm-hmm. waaw loolu itam li ma la ciy jox tegtal rek mooy bâtiment bii ñu taxaw mm-hmm. bu demoon ba nekk dixième étage itam man nañ ne fondement ba ci doxinu Massalikoul Djinane woowu la la soqi ko ndax sëriñ bi itam day dox ak dong yi doxin woo xam ne dañ koy gën a ñaanal mu gën fee yàgg te gën a wér te suñ borom bu leen ko taw feexal ngërëmul seexul xadim li muy sàkku te ci biir mm-hmm. maam bokk na ci li ñu gën a ci liggéey maam at mañ ko njëkkee siyaaree daayira dana dey lii de teguma leen ko waaye nag bu ngeen ci góorgóor duma leen bàyyi leen ko ndax jàng lu baax la ak tàggatu ci mhm. waaye nag dinaa leen ko defal foo xam ne mhm. euh, dangeen